Saliou la grande voyante yaakaar naa ku nekk xam na ko ci àdduna a bitim réew waaye di wax toujours rek numéro bàyyi noonu ci bi muy koo xam ne yaakaar naa képp koo xam ne jafe-jafe nga am ci réew mi ak bitim réew boo ko wooyee rek incha allah euh, sa njàqara dina saafara waaye tey nag dañoo ñëw ci li nga xam ne mooy actualité réew mi wër àdduna bi muy situation boo xam ne dafa dal ci Sénégal mu bëri ay mort trop ñu gis di set mort euh, am ci waaye nag tey aussi itam nga xam tey doomu réew mi di Wally Ballago sekk ku xam ak xam ko ak soxna Aïda Saliou di yaayam di léppam ba yaayam di ko jur sax dana ko yaay euh, doomam yaay lépp euh, mooy sa lépp tey macha allah muy Wally Ballago Seck mais mu amoon date boo xam ne dafa amoon fële ca France dam de Paris mu demoon tëggi ko nag waaye yàlla def incha allah ñu annulé ko ci li nga xam ne moo daal Sénégal euh, polémique yi bëri lu nekk bari wax ji bëri ci euh, doomam muy Wally Ballago Seck ñëw dëkk micro en tant que yaay ak doom soxna Lissa ñu ngi lay ziar. waaw alhamdulilah rabil alamin ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñaanal suñuy waajur di ñaanal suñu buntu ci Serigne Touba Seexul Xadiim di Serigne Mountakha Bassir waaye di ñaanal sama sang ba Serigne Saliou. waaye di nu nuyu àdduna ñëpp nag di masawu ñëpp képp ku yeewoo rek. Mm-hmm. doon jullit rek di wax ashhadu laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah ak foo mënti nekk soxnaa soxnaay dama ngi lay massaw mm-hmm. di jaale ñi nga xam ne yàlla da jël seen bakkan mu ñu njëkk la. Mm-hmm. di lu mujj ndax métit métit rek la métit mënut a weesu métit. di ñaanal ñi nga xam ne tamit seen alal dafa dem ci an ci anam bu leen neexul. may ñaan ñoom it yal na yàlla jox leen lu ko remplacer. ndax liggéey dafa métti dajale dafa métti mhm. mais lépp rek ci balaa Sénégal la mhm. ak lu wàcc suñu kaw ñu nangu ko nag ndax ñun ay doomi Sénégal lañu mhm. nangu nañu ndogal ginnaaw yàlla bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi dañoo nangu ay ndogal li yëpp ay ndogal la yoo xam ne sax heureusement bari na ñu ci séntu woon ba tax nañu delluwaat rek sant yàlla di ñaan yàlla na fi yam ci barke yonent mu mel ni yaay booy euh, li am euh, muy balaa bi wàcc yaa nga ko wax yaakaar naa ça fait mois huit mois yaa ngi koy wax balaa bi Sénégal nañ ci jóg nañ ci jóg mais ñu bëri di la tàngam lu euh, gis nañu balaa boobu tey egsi na parce que daan ko wax saa su ne muy ay sarax yoo xam ne da nga ko waroon génnee di ko génnee sa propre moyen mais am na loo xam ne itam la borom kër gi muy kan la tey ba balaa waaw bu méttee du ma jéggi ndax man may maman national maman mm-hmm. international mm-hmm. kon lépp loo xam ne dama ko war a def ci sama réew mm-hmm. bu fekkee ne doole ji nekk fii man képp ku yeewoo ci kër goo mënti yeewoo rek man pour man man maay sa ndey ñi may ñaanalee sama bopp ne laa lay ñaanalee càmm li ma yéene sama bopp laa yéene askan bi yëpp kon def ci askan bi lu ma war la ndax fi laay yeewoo ba tax na daal ñu ngi ñaan yàlla nu mucc yàlla def ci ndax mu sedd guy muy kaa yu ak nu mu mënti amee rek bu dee Adji Sarr Sonko. Mhm. Adji Sarr doomu réew mi la Sonko doomu réew mi la. Mhm. président Macky doomu réew mi la juge yi doomu réew mi la. Mhm. alkaati yi doomu réew mi la. ñoom ñëpp a bokk ndey xale yi jaamaarloo ak alkaati yi. ñoom ñëpp a bokk bëgg-bëgg. ñoom ñëpp a soppante. ñoom ñëpp a bëggante. ñoo bokk ay sëriñ. ñoo bokk ay ndey. ñoo bokk ay baay. ñoo bokk ay yéene ñoo bokk ay pas-pas. kon li nga xam ne moo dox seen diggante. ba féewalee xol yi. kon maa ngi ñaan yal na ko yàlla jëlee. président nag yi ak mhm. Ousmane Sonko bañantewuñu mhm. ñaari doomi réew mi lañu lii rek moo leen mën a boole bu dul lii ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mhm. kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñëpp benn lañu ñooy suñuy sëriñ ñun ñooy seeni taalibe kon fii Sénégal noonu la baaxoo waykat bi mooy woykatu policier yi mooy waykatu gendarme yi mooy woykatu xale yi sànni xeer waaye mooy woykatu ñaari président yi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarloo mooy waykatu juge yi muy Wally Ballago Seck ñoom ñëpp a ko bokk waali ñëpp a ko bokk mhm. waali képp ku jàkk bu bu fan si jëlee mhm. nga ne waali moo moom xale yi sànni xeer mhm. waaye boo jëlee alkaati yi delloo grenade yi da nga naan waali sekk mooy mooy mooy moo tax waali sekk mooy àdduna mooy population bi parce que ndaw ñëpp ay ndawam la kon moom jàmm ji ñuy am rek mu koy gënal waaye nag dafa fekk ne bu nu fàttali ko tuuti ci ginnaaw rek waaye wayoon na ko de dëgg la ah wayoon na ko wayoon na wayoon na ko ci ci bési bési si dakaar yi mu def <laughs> mhm. tournée bi mu def bési Dakar boo xëyee Kër Massar mhm. nee na leen euh, dimbali leen ma ngir yàlla ngeen def ndànk mhm. ngir yàlla ak yeneen tibi def leen dànk way woowu way la mais dégg la laaj ndax yaram wuy yeewoo cim réew bëgg sa réew sa réew jaral la lu ne ah yaakaar naa am na yëg-yëg bi waaye xëy na da ko xalaatewul woon nii waaye man gis naa ni am na lu yaramam yëgoon ci réewam ndax dafa bëgg ndaw ñi koo xam ne néegul dara metti keroog ba si parcelle dane nañ tibb jigéen ñi génne leen fi ñu nekk góor ñi kooku du teg jigéen lu metti du teg góor lu metti na xam na luy jigéen mu dem Pikine na nañu may jigéen ñi te ñu naan ndox te ñu te ñu puusante ñu ñu ñu moytoonte bu ñu gaañante mu way kooku yàgg na def ay signes yoo xam ne réewam bu sañoon góom du fi am taab du fi am kaataante sax du fi am ba pare ñu tuddee ko le centre du peuple ñu tuddee ko centre du peuple muy jeunesse bi moom mooy jeunesse bi mooy mm-hmm. population bi mooy mm-hmm. lépp mm-hmm. kon dañuy ñaan yàlla suñu borom nan koy sóor tuuti moom tamit ndax euh, xajul ci bëggut lii moom bëggul dara lu metti sénégalais dama ko xam moo tax mu xam xol bi contrat moo ko yóbbu. Mhm. mais contrat day tënk nit. moom ñu la moom ñu jël la di la liggéeyloo. Mhm. ñun ñëpp dañ koy xool ci suñu bopp. Mhm. bu dul yii mayewuñu feet état mayewul feet buñ ñu àcce leen ñu liggéey lundi te feet amul ñëppay xëy dem bàyyi seen i doom ginnaaw ndax ca la leen tënk tax moom li ko tënk. moo tënk tous les sénégalais. moo tënk képp koo xam ne waajur nga waaye per de famille nga. waaye lii lu ko métti la waaye. ay moom fi lépp. waaye li fi la am yaay fi la am ay frère fi la am ay sœur mhm. man mii rek waali bokk naa ci njaboot gi nga xam ni mhm. fa mu ne mi ngi may sóor ci lan laa ne mhm. yow idaani waali mi ngi lay sóor ci njabootam nga bokk journaliste yi njabootam lanu waali mooy ñëpp parce que noonu la yàlla dogal ci xolu jaam yi ci mu kon ndaw ñi na ñuy sóor bu seen yaram tàngatee ñu def ndànk nañu sóor lam leen wayaloon ni leen ngir yàlla ak yonent bi mm-hmm. def leen ndànk mm-hmm. way wow yéen a ko ba pare yaay booy mu dem ne euh, promoteur bi loo mën non am waali waali nit ki nit ki nit ki mm-hmm. nit ki mën nga def lu ne idaan yi nit ki mën nga def lu ne waale bu tabaski da nga koy gis ko ko reene ndax day am lu mu yëg gis nga euh, sëriñ Saaliw laa lay waatal dafa am nit ñoo xam ne nit ki boo waxee rek kenn ku ne na nga jël sa bopp di ko natt ci nit mm, mm, mm. nit kenn ku nekk waxoo ni nga mel ni nga jëfee nga tool nit ki saa yoo xëyee di wax ci doomu aadama mot wala langage bu koy sësale ak xolu sénégalais yi waali nekkatul koo xam da ngay jël sa parole di ko jaxaseeg sénégalais yi di ko jaxasee population bi xale yi sénégal xam nañu conscience tranquille bi nu am nit mënu leen a bëlëfee mm-hmm. ki ñu bëgg xam nañ ne da leen a bëgg fonk leen moo tax xale yi bëgg ko mm-hmm. mais nañu bàyyi ñenn ñi ci ñenn ñi mhm. bu amee ñuy profitoo bëgg a profitoo laala waale cere ji mhm. pour jaxase nit ki ak sénégalais yi mhm. waale sénégalais yi yi bëgg nañ ko ba pare jeunesse bëgg nañ ko ba pare mag ñi bëgg nañ ko ba pare xam nañu li leen waali jaral mais xam nañ ñoom it li ñu leen waali jaral bi ñuy bi ñuy manifesté maa ngi gis benn image buy daw bu daw yaram dañuy sànni xeer yi am boo yi naan moytu leen photo waali bi kon ñu ngi sauvé waali kuy sauvé sa photo bu la gisee sauvé la kon nañu moytu loolu gis nga sénégalais xamul lu mu bëgg bu xasee ba jàpp nitam. Mhm. mbaa mu xas ba bëgg nitam. Mhm. mbaa mu xas ba téye nitam. Mhm. lii ñu yëngal seen xol yëpp jàpp la ñu mën dañoo mën a jàpp. dañoo mën a bëgg nit. dañoo mën a xam bu ñu xasee ba joxe seen kàddu. dootul reculer mukk. noon la xale yi mel ci waa ji noonu la ñu mel ci Sonko. noonu la ñu mel ci seen opposition. noonu la ñu mel ci réew mi yëpp. loolu il faut ñu koy sóor. mbëggeel moo jàpp xale yi. yenn saa gis si boutique bu ñu yàq. mais bëgguñu ci dara dañ naan dañuy saaj mais am na sa ñoo xam ne billaay wallaay talaay bëgguñu ci dara mm. mais seen yaram moo tàng rek ba xamatuñ lu ñu war a def bu ñuy baaxit noonu la ñuy baaxee kon nanu ñaanalante lii fi dugg mm-hmm. di di di di méttitu di jaxasoo jaxasoo yal na ko yàlla dindi gis nga féebaloo dafa mën a togg lu ne mm-hmm. waaye xamuñu lum ñu yàqal kon yàlla nañu yàqal jàmm mm-hmm. ndax ñun ñu ànd ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Ousmane Sonko boo ko nee jàkk xam ni am na xol bu rafet waaye boo nee jàkk Macky Sall xam ni dencalul Ousmane benn xolu kiñaan li leen boole mm-hmm. àdduna la rek mm-hmm. nañu sóor mag ñu baax ñi nañ fi nekkee woon mm-hmm. xalifa gi ñu bokk ñu ay taalibe ku nekk da ngay aye sa ay yéeg wàcc jox sa moroom xale yi xeex xam nañ ne xeex bi falut folliwut ñii xëccoo ku nekk yaa ngi xëccoo loo xam ne muy Macky muy Sonko. xamuñu ndax dinañ ca egg wala du ca egg yàlla rek xam. waaye yàlla na leen yàlla boole ñu yegg ca ca barke yonent yi. ñun ñii di wax. Mm-hmm. jàmmi xale yi ñooy sunu jàmm. Mm-hmm. ndax man lu ma am Sénégal ma ko jox. lu ma am réew mi ma ko jox. bu cëg-cëg yi doxul bu cëg-cëg yi dawul du ma mm-hmm. doxle bu eh, journaliste yi amul oto dugg. kenn du ma wane. ñi ñi may ñi war a ñi ma war a seetal ñu di war a wan sarax yi. bu ñu nekkul ci jàmm kan la ñuy seetloo du ñu mën a ñëw ci kër gi seetloo ma kon lii laal na fépp mhm. te man xam naa ni ngeen ma def mhm. xam naa ni ngeen ma soppee mhm. xam naa ni ngeen ma bëggee kon boog nanu jàmmoo nanu bëggante na nanu saraxe nañu saraxe ay waaye nañu saraxe nañ leen génne sarax ndox mi na bari te xale yi bu ñu fàtte ne bu xale yi jamono ji ñuy génn boo génnee lekk ba dem ci alkaati yi wala nga dem ci xale yi manifesté wu boo leen joxee lekk wala nga jox leen ndox nga xam sa yaram day daw parce que man mënumaa sànni xeer waaye damay mën a obliser rek jël samay caag rek soow mhm. daw jox policiers yi daw jox manifestants yi yenn saa yi ñu dem gi xeer yi waaye su ma yegsee rek xale yi dañuy jël xeer yëpp teg ci suuf mhm, ndeysaan ak kër bu jox la gaz ba fii mhm. xale yi bu buñ demee bay sànni rek ma yegsi rek mais lay de puusa ma leen du ma puus dama leen indil ndox ñu naan daal dina nañ leen jàll beneen côté yooyu tamit nañ koy def nañuy génn di dalal xale yi di leen may ndox mag mu nekk nga xam am na luñ la rusee nga génn na xale bu yaramam tàngee du def lu ko neex te ay xale yi te policiers yi nañ yërëm ndaw ñi gërënaat saxaar si fu ne leen fa am ay asthmatique mm-hmm. am ay diabétique mm-hmm. am ñoo xam ne ñu ngi forcé mm-hmm. paa yaa ngi romb yëpp a ngi dem nañ leen sóor barki dem sama jëkkër dafa daanu ba benn bëñam deñ mais garaawul man mi su ma daloon tamit damay jël xam ne musiba moo wàcc suñu réew kon yàlla mi ko fi indi ak yàlla mi nu ko teg mhm. yàlla na nu ko teggil ci barke yonent yàlla Muhammad te ngeen def ndànk mhm. ngeen dal ngir yàlla ak yonent bi mhm. jëmm yàlla dal leen amul solo waali way na ko way wi dee leen ko dugal ci biir manifestation bi te bu mu amati yàlla bu mu fi amati sax yërëmante leen ngeen muñalante lépp ci xol yi la xaj yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla lafal leen cat ci barke yonent bi te ku am lu rafet na ko wax waaye ku am lu ñaaw na nga ko téye fitna yi bu jógee. Mm-hmm. na wax jii rafet. Mm-hmm. bañ a wax sax day gën wax. dëgg la kon nan wax rek mu rafet. Mm-hmm. moo gën xale yi dégg dëgg ndax fi mu toll nii wax lu rafet rek a gën. laal na ñëpp. laal na ko ci yoonam nekk man bala maa ne Sénégal naan kii yoonam nekk ci wala kii yoonam a ngi ci déedéet. ñun dañuy bokk naqar bokk lu neex bokkulu lu naqari. jàmm rek ci lañu ñu xaj yal na yàlla defal jàmm journaliste yi defal ko état defal ko opposition defal ko kilifa diine kilifa aada defal ko ñëpp ñu mucc. Cheikh Bara Ndiaye tamit maa ngi ñaan ci li ñuy wax bu dee dëgg la mm-hmm. yàlla na delluwaat këram mm-hmm. président ndaw ñaangoog mm-hmm. dëkk bi sa réew la yow la yaa nekk ci sunu kanam yaa ñuy gindi ñu lay ñaan rek ci sa yërmande ci nga xam ne sëriñ si ni ñu la yërëmee àdduna sépp yërëmee la ko ba xajal la ci sunu réew mi nga am ci cër bu yaatu bii nga xam ne tey ñun ñoo wëlbatikuwaat di la ñaan waxtaanal ak say ndaw nga génn wax ak ñoom wax mu dal seen xel te xam ne xale yi naqari wu ñoo waxal waaye bu leen topp ndax ay xale lanu dafa am rek lu nu bëgg jiital seen ndaw te bañ mu wéet waaye nga la yow tamit comprendre leen te xam ne ku yanu di nga yanu lu ne yàlla na téeñ bi yaatu da nga mën a yanu lépp ci barke yonent bi ñun say jigéen say waa réew say soldaar waaye say lépp daal ñu ngi taxaw di tàllal loxo ngir nga xool ñu ne bi ñu lay fal dafa am fuñ toll woon jële fi nit teg la fi kon boobu yaa ngi ci nag yaa ngi defar bu baax yaa ngi nopp yaa ngi yërëm ndax nee tontu bu naree laal xol bu metti mm-hmm. tontu bu ñaw bu ci dara paaka kenn du ko daas ci coow mm-hmm. waaye saa yoo demee bu mën a jàkkaarloo askan bi jot na nga jàkkaarloo ndaw ñu defal leen woowaat leen ci waxtaan mm-hmm. woo woo sun ko sa rak sa frère sa sa sa collègue mm-hmm. sa lépp nga waxtaan ak ñoom Barthélémy Dias gis naa démb say parole mm-hmm. rafet na parole yi rafet na def nga yëfi nit koo xam ni am nga kilifa mm-hmm. réew noonu lay doxee yàqul dara ci sa garaat waaye yàqul dara ci sa cër jërë ngeen jëf ku mën lu baax nekk ci yàllaa la gën a baax jërë ngeen jëf bu ma dee dama juum ci kàddu yi maa ngi tuub di ñaan ngeen jéggal ma ndax man alali sëriñ Saaliw laa nii rek laa war a waxee ak yéen mm-hmm. laa ko seen frère la mm-hmm. seen doomu réew la mm-hmm. bu sañoon dara du leen metti jàmm rek la bëgg yéen mag ñi nga xam ne yéen a féete Wally ci ci ci kaw wax leen génn leen ngeen wax te Wally xam naa ay tegginam ak yaram buggu teel a génn wax tëb ay baayam wala tëb ay magam te daa am ñu ko jiitu ci mbir mi wax leen moom way na lépp na ñëpp wax jërë ngeen jëf merci beaucoup jërëjëf